ñu woon tey jii dañuy dikk bu dee lii xew na ñu doon ñi nga xam ne ñoo njëkk dikk ci kër gi masawu coono waa kër gi waaye masawu coono suñu bopp ndax Marème doon na koo xam ni man kenn gënuma ko woon a jege parce que bokk naa ak moom classe donc ñetti at te ñetti at du ndaw léegi nag ñu dikkoon di di mitit lu loolu àndoon ak ki nga xam ne mooy suñu parrain ñun étudiant yi nga xam ne ñoo nekk ci université de Thiès bi fépp fu nekk li nga xam ni ñun ñu ngi koy soxla ci moom mu ngi ciy taxaw bi ma bi mu xewee tamit bi ma ko envoyé message ci saa si daf ma ñu doon loo xam ni dañ koy rafetlu trop du maire du dara eti cees euh, waala bu dëkk Thiès xam ne dañoo nekk ci ay métit mu ñuy jàppale. di massawu ñëpp coono yi waaw coono yi euh, euh, bi mbir mi amee ba tey bokk geeg xarit yeeg ñi mu bokkaloon école ak yéen ñi nga xam ne ay encadreur am ci école yi kenn toogul. boobu ba léegi yéen a ngi dox yéen a ngi wax yéen a ngi sonn kon ñoo ngi leen di wu ci yooyu mbir mi diisoon na trop nag waaye bi ñu leen gisee ak léegi mbir mi mi ngi sedd si mu ngi sedd si ñoo ngi sant yàlla bu baax euh, toll nañ foo xam ne nag tiis yu metti na ci ñun ba nga xam ni euh, du ñu man lu dul rek sant leen gërëm leen waaw ñu ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm yéen bokk fi teew yëpp. man bokk naa ci seen parrain yi. Euh, parce que école bi mi jangé man fofu la génnee mo IT bu Thiès man maa ñëw première promotion bi yalla def na simit man tamit mo don tamit kuy jàppale étudiant, tamit parce que bi ma amical le président de l'Amical, c'est si boppam ma informé depuis hier su bi tey informé à 6 h du matin né mo président amna kenn si membre xamné dafa décédé. limu ko waxé tay ma amoon ay yitte yu bëri si Dakar non la réplié wu ma wat ma ñëw tey ma ne noonu mënu ma dem Dakar il faut mu ñëw jaali ji parce que ñii sama ay rakk nañu sama ay jarbaat nañu problème bi mooy li ma faral di wax rek euh, affaire agression yëpp lu ko indi mooy mooy ñàkk sécurité bi moo ko fi indi ak euh, obscurité bi tamit parce que éclairage bi c'est important yi nga xam ne tamit mooy maire di gox bi tamit war na gën a góorgóor lii dafa ñaaw xale boo xam ne bu ñaar fukki at nekk si diggu doolam nekk étudiant nekk waa nekk yaakaar si famille am tey ni ñoo bum ko nii dafay yot man je pense que peine de mort ñun de en tant que président moom sax man de vraiment àndal naa si te àndal naa vraiment état ni mu gëna a ni vote si loi bi quoi pour éradiquer ce fléau. lii c'est c'est la tune de la femme. ñuy ñaan état mu gëna renforcer la sécurité surtout des femmes jàppale leen surtout. aussi peine de la mort ni indi ko yaakaar naa bu doon rek lu bëri dina ko fi.